ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal faral di suivre Leral TV Leral TV encore une fois ñu ñëw fii nga xamante ne moom mooy Ziguinchor rawatina le port euh, de Ziguinchor port maritime gare maritime bi euh, xam nga ni ki laata tabaski euh, la ñu arrêté circulation bateau bi nga xamante ne moom moo fi daw def liaison Dakar Ziguinchor alors bateau boobu nag dafa arrêté am ay conséquences yi nga xamante ni jur na ko comme vous le voyez vous voyez l'environnement daanaka ñi fi nga xamante ni ñoom ñooy clients yi faral di jël bateau yi fii daanaka da doon ak nit ak ay clients mais vous avez vu la zone est complètement des clients mais aussi commerçants yi nga xamante ñoom ñoo fiy jaay ñoom i tamit euh, bokk nañ ci nga xamante ne dañuy profité ci circulation bateau bi économiquement parlant dafay am impact ci li nga xamante mooy euh, seen euh, commerce bi mais fi mu toll nii ak depuis bateau bi arrêté léegi xam mën naa mat un mois ñoom it seen jënd njaay mi daanaka soxe na lool fii nga xamante ni moom mooy Ziguinchor ci gare maritime bi alors on va essayer quand même a exprimer ñëw ci li nga xamante ne mooy conséquence li nga xamante mooy arrêt bateau bi ndax booba léegi amuñu ci ay explication yi nga xamante a xam lan moo moom la ñu jàpp dañoo jàpp ni manifestation yee tax mais zone bi day zone boo xamante ci am accès comme vous avez vu à l'intérieur euh, du port c'est dépourvu complètement euh, des clients et des ouvriers nga xamante à chaque fois dañ doon gis bu bateau bi di daw ñuy def de va-et-vient ñuy ki ak génn loolu nag euh, amatul fii nga xamante ni moom mooy euh, gare maritime bu euh, Ziguinchor désespéré se commerçants là on va essayer de les rencontrer ñu mën ñoo expliquer li nga xamante ni moom la ñu dund actuellement ci jafe-jafe. bateau bi daal moom ni mu taxawee nii moom métti na ci ñu torop parce que fi mu nekk nii jaabi doxul dara doxul dara demul sax depuis avant tabaski bateau bi taxaw gisuñu dara. te ñun moom gannaaw yàlla boo gisee moom maanaam gaa yi ñoo jënd ki la ne ñoo jënd bato bi la waaw bato bi moo tax ñu bu bato nii moom dañu dañuy sonn trop te fu mu nekk ne xam nga tey dimanche normalement tey na doon jour départ mais dara gis ni mu wéete dara doxul bi moo tax ñuy jaay xam nga bu amul nii moom gis nga ni mu wéetee doo gis kenn yow sa gis nga ko sa bopp doo gis kenn dafa wéet dafa wéet kii daana du ñu ñëw léeg-léeg sax da ngay gis sax même chauffeur yi sax léeg-léeg la ñoo taxaw sax arrivé baton yi chauffeur sax fii ñoo taxaw sax pour xaar client yi mais léegi moom doo gis dara lépp a taxaw dara doxul sonn nañu moom bu ñu indoon bato bi moom dina baax trop ci ñu nit ki moom li gis rek da ngay jàpp si yàlla nga xam ne yàlla moo ko dogal bés bu ko yàlla dindee mu deñ waaw ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla nañ ko yàlla dindil si jàmm ñun jàmm rek lañu ñu fii bu ñu toog nii suñu wërsëg rek lañ fi ut si toog di jaay di ut suñu wërsëg gis nga place yi yëpp dañu tëj dara kenn jaayatul gis nga leen gis nga kii ça fait presque une semaine ñëwul ndaw si toog nii tey la door a ñëw mu ne mu ngi door a am yoon pour mu ñëw kon nag xam ngeen ne coono bi am na du ci man du ci keneen du ci keneen ku wax rek xam ne lépp benn la. da ngay toog da ngay toog da ngay toog journée boo ngoon doo jaay boo jaayee dix mille francs wala cinq mille. nga dem def ko dépense ñëwaat ëllëg nga ñëwaat li nga def dépense li nga def li nga jaay loolu ngay dépense oo kon nag nga xam ne coono am na coono am na de man rapporté li ñuy def nii sax euh, daaw ma ko bugg waaye sonn nañu sonn nañu bu ñu sonnee nag ah ku sonn wéqu bato bi moom bi mu taxawee mi ngi bëgg a yàgg teewul nag ñu ngi sant yàlla waaye buñ sañan nag mu tàmbaliwaat ndax wax dëgg yàlla activité yu bari xaw naa taxaw loolu lépp nag ci dogali sun borom buñ saña nag mu tàmbaliwaat daana def at mu jot mu taxaw lu mat weer ay defaraat wala waaye bi yoon wax dëgg xamuñu lu ko waral nag dëgg nag mu mu daw ñun moom ay góorgóorlu leen ay taalibe leen di daan suñ doole waaw ñun moom wax dëgg yàlla lool la ñun moom wax dëgg yàlla leen gëm daal ay taalibe leen ay julli leen di taalibe Sëriñ Tuubaa di daan suñ doole ak comme tey mu doonee dimaas te bato bi dawul moo tax ñu bëri du ñu ñëw moo tax ñu bëri du ñu ñëw léeg ñu ñëw léeg du ñu ñëw boo tamul toog kër ga te yaa ngi yor bagage yoo xamante ne danga koy jaay balaa ngay toog kër ga nga ñëw toog nga jaay mun na am tamit yalla indi la wërsëg bi ngay yóbbu bi ngay jaay nga yóbbu kër ga mais boo toogee nii kër ga yaa yor bagage xam nga amul njëriñ. moo tax nag dañuy ñëw toog nii rek jàpp si yàlla rek lu ñu am ñu jël après lu ñuy dëgg ñi naan ay manifesta moo tax manifestation yi ñoo tax ba bato bi dawul te gars yi nu ñu manifesté yëpp musuñu fi yegg fii seen tànk ville bi fii yi musu ñëw fii sax duñ ko xalaat sax mu ñuy ñëw duñu yegg si ville bi de non non li musul maanaam sa musul am sax manifesté sax musuñu yegg fii sax musu musuñu yegg fii wax dëgg yàlla carrossé lañ waaye nag bu leneen amee dangeen ngeen war a gistu ngeen xam ne ñii même Sonko bu demee ñun ñag ñun dañuy des fii dañuy des rek waaw nañu def ndànk rek ñu rafetal ko moo gën ñu ko rafetal la daal moo gën. li ma doon am li ma doon am par rapport depuis bato baa ngi daw ak léegi dafa changé dafa changé trop dafa de. te buy gën na dox sax maam bi moom maanaam ay ndambarance tuuti rek ay gis nga gerte caaf laa ñoo takka nii sax muy ne si siiw moom laa ñoo takka nii sax pour jaay pour am ci dara te xam nga ñun moom gannaaw yàlla moom njaay bi lañu ñu yaakaar war fajee suñu soxla nañu jàppale muy nuñu bato bi ñun kay moom lu bu amee moom danañ gaay moom dañu kontaan trop muy ñun baana baana muy chauffeur yi transport bi yëpp nañu kontaan waaye comme bato bi taxaw nii moom presque weer moom àllu ci tegu avant tabaski ba tey gisuñu dara gis nga fële yëpp ñëwuñu nañu fees fii ay client gars yi di voyager di dem ñu voyager ci dem bato bi fii la fees def jënd di jënd ay crevettes yi ay lem yoxos yi di yóbbu mais léegi yëpp a taxaw lépp lépp a taxaw depuis depuis bato bi taxaw. depuis bato boobu mu arrêté. la suñu bagage nekkoon foofu yeneen yi ñu ñëw yeneen yi ñëwagul ba léegi ñëw kon du man kenn du keneen ñu jaay fii yëpp loolu lañuy nekk man fan yi dama mujje yónnee sama benn xarit si biis yi lañ ma tegal yeneen bagage yi mu ñëw bagage yaa ngi nii waaw ci biis yi kon kay amuñu amatuñu xamatuñu ni ñuy def waaw nañ si nag ñu ngi ñaan nag ndimbal nguur gi bu ñu mënee dimbali ah mu teggil ñu si wala bu dul loolu ñu ñaan yàlla moo am ne moo yor moom moom lépp moo moom moom nguur gi moom ñëpp waaw yàlla teggil ñu ko. fii kay saa yu bato bi ñëwee moom moom day taw day fees wax dëgg yàlla nit ñi dañuy wàcc ñi ñiy ñëw di du seek ñiy dugg seeg ñëpp dañuy ñëw fii wax dëgg yàlla moom da doon bari nit moom wax dëgg yàlla. àddina bis bu ne day yóbbaale bis bisub tey bii mën nga doon séntu ni dinaa ci su ma ci amee nangam mu baax. far yàlla jox duubal te lim la jox li nga doon xalaat mu am beneen bis boo xam ne amoo ca dara dangay jël bis bee indi ci bis bii doomu aadama noonu ngay def bis bu ne day yóbbaale bis waaw jamono noonu la temps noonu la waaw jamono noonu la temps noonu la waaw soo ko dee def rek sa àddina day day day neex noonu la ndax xam nga yii yëpp bato. amoon na jamono bato sax amutoon waaw bu nee ba bato am ba naa bato bi daa arrêté yooyu yëpp kii la yooyu yëpp fi la nu fekk waaw ndax ñun ñëw nekkuñu fi tey ak démb yàgg nañ fi voilà bato ba fi jiitu woon ba suñ borom andi woon dogalam fi la nu fekk jamono ba loola xewe woon bato amutoon voilà loolu lépp ñu ngi koy dund ba léegi 2002 loola fi la nu fekkandi jamonoy bato amul dégg ngeen kaddu yi nga xamante ne moom la commercant yi yëkkati ci seen wàllum njaay mi mais économiquement parlant sur euh, la ville de Ziguinchor arrêt bateau bi dafa am impact ci li nga xamante ni moom mooy seen i activité économique fii ci gare maritime bu Ziguinchor ji gis na gis ngeen noonu ce sont yu fi taxaw ñen ñi seen bagage ngi ci bateau bi boobu ba léegi mënuñ ci am accès mais ñen ñi nga xamante ni dañ fiy jaay tamit ñuy commerçant yi ñoom it seen jaay mi demetul noonu jàpp ci yàlla moom daala daanaka moom moo fi ses moo tax na euh, tey malgré que ni dimanche te dimanche ñëpp xam nañ ni ki bateau bi dafay daw fii ca Ziguinchor alors buy daw buy faral di daw les dimanches fii da doon dox mais gis ngeen dimanche la complètement la ville est désertée les voies yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk euh, daanaka doo gis kenn ki nga xamante ni ay clients la wala ay nit yi nga xamante ni dañuy ñëw di jënd ci ñoom muy lorange yoo xamante ni euh, ñu ngi koy dund fu mu toll ni te ñi ngi tàllal loxo ki ni mooy le gouvernement du Sénégal quand même pour la reprise quand même li direction euh, ni nga xamante ni mooy Dakar Ziguinchor ci bateau bi nga xamante ni da doon da doon daw di am li nga xamante ni mooy ay euh, daanaka ay njëriñal euh, ci seen activité maanaam ci commerce bi nga xamante ni moom la ñu amal ci li nga xamante ni moom mooy seen activité rawatina fii si Ziguinchor daanaka lépp taxaw na bateau bi am na ci impact boo xamante ni jur na ko fii ci Ziguinchor ñu ngi leen di gërëm di leen sant c'était Leral TV à Ziguinchor on vous donne rendez-vous en exclusivité sur Leral TV